jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu wi euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru decembre décembre 2013 euh, di wax asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di ñaan yàlla mii borom jàmm doolu ñu jàmm mii borom sutura doolu ñu sutura doolu xéewal faj ajo yëpp yal na yàlla jolli jàmm ci réew mi ak li ko wër. mbokk yi yéen ngi seen magazine Roffo tey ñu fas yéene nag dellusiwaat jàngatal leen làmb jàngatal leen làmb indiwaatal leen nag li nga xam ne moo amoon ci weekend bi. ak li nga xam ne moom lañ leen bëgg indilaat te muy dugg ci li nga xam ne mooy recomposition de l'arène mën nañ ko tuddee recomposition mën nañ ko tuddee relance lu ci ne mën nañ ko ca jàng comme niñ ko daan defee ci li nga xam ne moo ne ci làmb ji mbokk yi euh, di wax ne maa ngi feggoog nag Alaaji Cheikh Thierno Ndiaye euh, mi nga xam ne ci jàngatam ah, daañ ci ñëw ci combat yoo xam ne ñu jukkil nañ leen ko te war cee indi ay jàngat looloo tax tey euh, ñu feggoowaat ci magazine seen magazine Roffo mbokk yi euh, laata ñuy euh, door di wax euh, ne li nga xam ne mooy sunu naatango Alaaji Abdou Aziz Mbaye mi nga xam ne dafa ñànk umpaañam di sunu xarit di sunu mag di koo xam ne kii kenn la ci kër gi Cheikh Thierno moom it ñu ngi koy masawu di jaal képp koo xam ne kii rek ñàkk nga mbokk wala koo xam ne kii rek jege na lool lool kon ñu ngi koy jaare foofu yëpp di ñaanal yàlla way dawlu yëpp yàlla xaare leen aljana mbokk yi euh, di leen wax ne nag ah làmb ji gis ngeen fi mu toll actuellement ah, ñi ngi bëre Ibamar ñi ngi bëre stade olympique bu Ngor ñi ngi bëree yoof foofu yëpp ñu ngi fay bëre euh, euh, li des daal mooy bëree guñ ci biir banlieue bi lu mel ni Géejawaay yaakaar naa gars yi nañ fa programmer waaye tamit di wax ne lu traditionnel bi aussi ñëw nañ ci premier journée bi première journée bi kan moo ko tijji 2013 2014 Manga production loolu daañ ci ñëw ci kanam ak euh, ki nga xam ne mooy Abdou Fall production moom it euh, samedi ci stadium Iba Mar Diop euh, diggante dumbul la woon ak ki nga xam ne mooy lay béy ca stade bi nga xam ne nag mooy ak Muña production moom it daañu fa dem ci li nga xam ne mooy diggante Picca ak général bu Malika loolu tamit amoon na ci weekend bi alaaji Cheikh Thierno salaamaaleykum. Aji Ngañ waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mm-hmm. ànd ak yow rek sant bu baax a baax ak téléspectateurs yi xam ne ñoo ñuy seetaan à travers le monde entier ci seen télévision Futur Média du seetu réew mi di Sénégal waaye seetu àddina bi yépp la di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i njabootam ak i saabaam ak i ñoñom di sëlmal ci ñoom di nuyu kilifa diine yi dugg kër maam Cheikh na Cheikh Saad Bou wàcc ci kër yi diine lislaam yëpp di waajal nag màggal gi xam ni sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ci tukkoom bu mag ba bi mu ñëwee jéggal ñëpp jéggal lépp taxaw fépp moom la ñuy màggal jaar sunu kër maam Seydi Hadji Malick waaye fii ñu toog nag ëttu maam Seydina Limaamun Mahdi Muntazar nga ñi ci hôpitaux yeeg kër yi. Mhm. ak mbedd mi tawat yàlla na leen yàlla wéral. amiin yaa fii ñi caabi féete ginnaaw sunu borom mooy tege nattu. Mhm. te nattu bu mu la teg boo ko nangoo xam ne mooma mu woyefal la ko. yàlla na leen ci jële te teg leen ci njub teg ñu ñun ñëpp siraatal mustaqim ngañ azal beyti mhm. gor ñi nekk ci réew mi nangoo daan seen doole sàmm seen ngaar ak seen diine. ak ñi ci bitim réew di ko wuti yàlla na sunu boroom baaxe leen ba lu ñuy wut ñu muurloo ko mm-hmm. ca ba mu njëkkee doon seen wërsëg bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam xanaa wax rek ni mm-hmm. tiis wii wàcc sunu kaw mm-hmm. di umpaañi Abdoul Aziz Aj Abdoul Aziz Mbaye sunu turandoo baay di sunu baay nekk ci kër gi ay sangam ñoom aram ñoom awa ñoom ñépp Idrissa ñoom ñëpp ñoo ngi leen koy jaale di ko jaale waa HLM 1 2 3 ba 6 ndax alaaji Saf Mbay ku ko xamoon xam ne moo doon naay mu jumaay alaaji Abbas Sall. jërëjëf jërëjëf yóbbu nañ ko tey. jërëjëf jébbal ko sunu borom. Mhm. ñuy ñaan yan na ko sunu borom def muy ganam te bañ doon ganu malaayika bi yormat Seydina Muhammad sallallahu alayhi jërëjëf alaaji Cheikh Thierno euh, ci loolu nga xam ne euh, ñëw nga ci surtout weer wi nga xam ne ci nga ubbee euh, yaakaar naa ne sax bii mooy. Euh, bi tiim màggal laata ñuy màggali. Mhm. waaw bii sunu édition bi xam naa ne buñ ci dellu seetee ci kàttanu yàlla bu ñu ko yàlla mayee. gannaaw màggal lay doon euh, nga xam ne euh, dañuy def pause. may nag li nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne moo am ci diggante bi su ko defee dañuy def pause xam naa dellu siwaat ginnaaw yàggal parce que boo xoolee làmb yi sax fi mu ne actuellement fii ak fin de mois bi entre la vingt huit le vingt neuf làmb doxatu fi loolu tamit. Euh, di ko fàttali di ñaan yàlla may ñu teewe nëgë ni déwén euh, di ñaan euh, yàq yàlla yàlla yàlla yàlla defal njabootu maam borom Touba tawféex ak jàmm ak sutura ci barakatu rasulillah sallallahu alayhi wa mbokk yi dañuy dal di dem nag samdi ci stadium Iba Mar Diop ak Abdou Fall production seetaan li nga xam ne mooy première édition bi nga xam ne nawleem ya xaritam yooyu nga xam ne ñoom lay dajeelandoo ci wàllu football te nga xam ne at bu jot mu tuddee leen bés ñu dem nag seetaan ki nga xam ne Euh, mooy dumbul ak ki nga xam ne mooy lay bay arbitre sifle na Abakara Modou Baye Fall moo leen wan ginnaaw moo nekk école ci Mbouri capitaine moo wan kanam moo jaare caaro yi gëm ca Baye Mandione waaye li ma Aba mooy Baye Mandione indiwu ko ah am na lu ko doy arbitre baa ngi waaxu rek arbitre bi la ñu daanoon keroog <laughs> laay laay la laa Aba Modou Baye Fall mu ngi leewtoo ak capitaine ah capitaine da leen la door nga daanu de capitaine da leen door nga daanu de Modou Baye Fall a ngi door ci biiru capitaine bi capitaine ak Modou Baye Fall baax na léegi mu leer capitaine ak Modou Baye Fall. ñoom ñaar songo nañu Modou Baye Fall dafa ndengeñ capitaine capitaine a ngi bëgg rocce loxo bi pour xeex Modou Baye Fall eh ña ngay rokkas Modou Baye Fall Baye Modou Baye Fall a ngay fayu Modou Baye Fall a ngi añ wala boo ñi koy añ waaye dafa rasu dafa rasu mbot ma tey ñu daan Baye Fall bi de astafurla astafurla astafurla Abakara laay laay la laa Modou Baye Fall ak capitaine li may laaj mooy lan moo tax capitaine égalul prise bi ma koy wéyale bañ na. Papa Ndiaye Aïda mu ne war na jàngi way ma koy añ bañ na Modou Ba tekk ko mbot ma laay laay la la el laal la de daan nañu Modou Baye de capitaine daan ko de capitaine daan ko de waaye a daan daf ko daan ba daanaale arbitre waaw daan na ko daan ko capitaine daan na Modou Baye laa ilaaha illallaah akay Modou Baye foo nga waroon a tudd laa ilaaha illallaah kii kañ Modou Baye foo la Baye Fall kañ kenn du ko daanee nii i Baye foo la ndeysaan Aba Kara ñaareelu tam école de lutte Fodé Doussou Ba moo nge moo Jali Birama Coor ca Langsane la nekk moo nge moo nge mul xonq li ndeysaan arbitre bi ñu daanoon keroog sifflé na Jali Birama Coor toj na nen ak omelette. ah waaw waaw la portable or la. samay maam lañuy ñuy way noonu. dëgg la. la ilaha illallah Abakara kii mi ngi daw rek. ña ngay damantay baaraam eh songo nañu songo nañu ñu ngi dox ci kaw tam tam door na une deux tam dooraat na rokas tam tam de bët ba neewi tam de bët ba neewi na ngay door coup perdu attention coup perdu attention coup perdu attention coup perdu jël nañu tànk Jali Birama Thior rëpp nañu ñoom ñaar rëpp nañu ñoom ñaar comme yambar yi ñoom ñaar ay yambar lañ da ngay dem ardo benn booy bi de xoola bët ba bët ba de suulu na ci saas tam xeexu mbedd lay xeex waaw waaw xeexu xeex yow yaay wax ne Ada daa sonn bëgg a noppaliku tam daa sonn bëgg a noppaliku xool ko xeexu mbedd lay xeex waa jaa ngay ñandu jali ngay ñandu jalee ngay ñandu jalee deret la ma xam ñi kañ seen mburu faga daga la ñi kañ mburu faga fanaan lañ yor fanaan juróom-ñaari fan ñii ñii kañ wane leen ci la télévision leader sax wóorul ñii kañ dem leen ñu wane leen ay 2 ay canal yooyu comme mooy télé 2S comme mooy télé xur dabb yi ak RDV ñii kañ di ko combat di ko wane TFM sax ëpp na ñii kañ aluña ñii kañ parenteer rek war a defal kenn waru wane yëpp waaw bëgg xeex mënoo xeex doo changé combat ba jeex na cim cim cim cim cim cim match nul Frazier lan lay def ci armée lu mu war ta def ci armée doo nag bu ma doon Frazier du ma jël armée fii laa xale buy dem la Frazier mën na ci arme dara xanaa ah man de li ma a yëgal mooy El Hadj Thierno Ndiaye moo doon français fii laay bàyyi armée du ma ko jël. armée bari na jumtukaay de <laughs> looloo ma ci jaaxal Mouhamadou Lamine. te bëre xale la mag. bon Lamine kii ci sa wetu càmmoñ mooy kan. kooku mooy armée ndeysaan moo nekk benn barak mbooloo ki nekk sa nijoor mooy kan. kooku moom mooy français ma nga nekk ci Pape Diop Boston. kon téléspectateur yëpp léegi xam nañ ñan ñooy bëre école de lutte Boston la nekk. nañ leen Frazier mook armée te Lamine ñoom ñaar bokk tànk bi ji talent. Ah. looloo ma jaaxal. Frazier daf ñu tekk rek di déglu armée. ragal naa benn song la de. feeñee feeñal la nag làmb ji jeex fa looy wax. nga nga ànd rek ñibbi. Frazier gi door da takk. waxoon naa la ko. armée loo waxoon naa la li ma jaaxal mooy lan moo tax muy jël xale dóor. armée daan na fraisier soo jàppoo dafa am loo a nee naa la bu ma doon armée bu ma doon fraisier fi lay bàyyi a nee naa la bu ma doon fraisier fi lay bàyyi armée xale buy de bii ma waa kii lu muy julli nii moom ban waxtu lay julli ko ko day fay faat ah, yaa yaay seen sëriñ <laughs> ndeysaan fraisier dem na ar retraite trois défaites la tegle fraisier dem na retraite armée ndeysaan yor na mitrailleuse ba ma ngay tiira ndeysaan laay laay la laa ça c'est l'armée nee na moom la xam naa ni Fodé Sarr sama xol bi sedd na ma nga yore bal bi di tiire Abakara armée ngay tiire moom tiire rek ñun fan ak ñeent ci weeru décembre atum 2013 ñu ngi ca stadium Iba Mar Diop Pape Abdou Fall production moo ko dëgg tournoi de lutte avec frappe ndeysaan tolof grand combat bi Khadim Ndiaye la woon ah, ah, ak doomi Robert Diouf ji Khadim Ndiaye numéro 1 ndeysaan feebar bi ko dal yàlla na wér Alaaji Cerno Ndiaye allahumma amiin waaye waaye laay bee ak dumbul mooy grand combat yombul da doon laay booy gëdd ko. laay booy nee ba ko Modou Lo daanee ba léegi mënul am victoire. nga nga laay booy maam mu ñëw. mbaa mu ubbi mu ñëw. waaw buntu wut de. jël na ko jël na tànk bi jeex na. koy yaay ah ragal nga loolu. ragal nga loolu. dumbul ak laay booy. laay booy ma ngay door dumbul ngay wut fu mu jàpp. laay bee ngi door dumb la ngay wut fu mu jàpp laay bee daa daan dengeñ laay bee daan dengeñ alaaji Cerno Njaay fa ndengeñ fëgg waaye man de bugguma dumbul yëkkati loxoom fëgg ko ndax dumbul mi xale xale la laay laay laa dumbul ak laay bee laay jël ko laay bee jël na ko laay bee jël na ko laay bee jël na ko xale bi daa diis de El Hadj Thierno Ndiaye. ah xale baa ngi ci état. kan moo nekk ci état. laal nañu suuf ñoom ñaar nag léegi Lamine fetti lewtoo laay bey dox na benn tànk wut si dumbul dumbul yootu laay bey dafa yootu fëgg boobu dafa yóbbu buñ la jàppee mu jeex de dumbul de dumbul. Ah, jël na tànk bi dumbul jël na tànk laay bey dumbul jël na tànku laay bey laay bey rasu na El Hadj Thierno rasu génn complètement jël na ko lay rasu na eh dumb la ngay door dumb la ngay door ñu ngi ko joxalante ñoom ñaar ñu ngi koy baax waaw lan la fekk moom ku ñu way nga def mbir ndeysaan victoire wut man daal dumbul mi jaaxal na ma. laay wey luru la ne dara nekkatu ma waaye dumbul eh eh eh dumbul dox na ci kawam jël na tànk bi laay wey jël na tànk bi dumbul rasu na. kuub bi ko door dafa dal. eh door na ko de daw na fi daw yoo xam ne. dawi talaatay ndeer la fi daw ña ngay rakas bey laay bay dugg na koon génn nañ dumbul danañ la jox beneen avertissement ah laay de am nga loo wax ak lu mën a xew am na loo wax dumbul ak peccam mu rëy mi mu fi pecc yëpp ak showam bu bi fi def dama ni la boo ëndee xale dafa am noo koy noo koy bëreloo moo la moo la mag du wax mais songu yi dumbul di songu sax daa baaxul Lamine Roo foo bi dara dina fi am de fii dumbul mii bu dee moom la rek dara du am ah mooy xale de na actionné cim jeex na match nul lu am ci làmb match nul lu gëj a am ci làmb lay bay am na way cim. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu demee stadium Iba Mar Diop seetaani euh, première journée Abdou Fall production euh, diggante Dumbul ak ki nga xam ne mooy lay bay combat boobu rek lañ ciy jukki euh, kii Cheikh Thierno. laay bay lay bay man dama gis ne ma amaat na yaakaar. te def naa làmbi yaakaar la doon bëre ginnaaw bi mu teglee ay defet yoo xam ne xamul woon ci ban côté la ko daan dikkee mais euh, samedi am na lu mu indiwaat am na lu mu wanewaat amaat na yaakaar gu mu tàbbalaat ci ay supporteram ak ci boppam mayaat boppam beneen moral euh, Cheikh Thiam euh, jërëjëf Haaj ba Haaj Demba mhm. maam Demba maa ngi lay xamal ni la laay béy li mu wane samedi li mu wane dimanche bii. Hmm. yaakaar dugg samedi. Hmm. samedi la waaw li mu wane ci samdi bi. Hmm. yaakaar dafa duggaat ci moom. la ko rëccoon ci staff ba mu daan àndal ñoom Babacar Dieng ñépp dañu ñëw ëmb ko. mu indi beneen état. ku fa taxaw foo woon nga ne laay bay balay komba bi dem dix yu njëkk yi mu jeex ba sede. laay bay contretenir dumbul mhm. miy ndaw mhm. ci ko pexe laay ba yey bëri ji jël ay ko mhm. pexe bu dumbul indi ba foog ni bu ko songee sar dem laay bay da koy moobu delloo si ko wiite ko féete ko fa mu jóge remplacé ko <laughs> waaw à tout moment mu remplace mais kon laay bay am na yaakaar gu rëy yaakaar tàbbi na ci moom yaakaar tàbbi na ci ñi muy àndal nan nag la mën a téye yaakaar jooju bu mu yëg lii mm-hmm. li jàll bu mu ko yëg lii mu am samedi bu mu ko faalee li muy faale mooy yokk ay entraînement am mm-hmm. yokk jaxasoom ak estafam ba ko rëccoon te dellu si mm-hmm. xool li ci kanamam te du mooyu li ci ginnaaw bu liggéeyaatee day bokk bu defee sacrifice day bokk moom nag mooy liggéeyaat jox boppam làmb ba mu jeex tàkk. xoolal bëreem ak caat. caat waaw. mu jóge fa ñëw bëre ak dumbul. tenir ko tenir ko tenir ko 40 euh, minutes. kon yaakaar tab bi na ci moom 40 minutes 40 minutes. ba pare yoo xam ne. adversaire bi. Euh, teggiwul lennam ci voilà blessé na ko deux fois. blessé na ko deux fois. teggiwul dara ci yow. waaw teggiwul dara ci yow. bu dee ku jël na ko. Mhm. bu dee bëree bëree si na. mais mais action yëpp moo ko mënee. yëpp laay bay yëpp moo ko mënee. yëpp laay bay action yëpp moo ko mënee waaw waaw. xeex na dégagement bu ma jege mu jege mu xeex mu dellu si tontu moom dumbul ci kaw mu daje ji ak moom saa yu dumbul jógee mu dajak ak moom bëre. te bu jógee di ñëw dumbul du ko téye. ci diggante bi rek. Mhm. dina egg si dumbul téye parce que boobu lii mag du du ndaw. lii mag du ndaw mhm. mag mi mën na jeex mhm. fexe ba nëbb jeexam ba du feeñ kon kon da nga bëgg a wax foofu laay expérience la bëri rek expérience la bëri mhm. mais dumbul mi ñu indi war nañ ko rectifier wax naa la fii nii la war nañ ko rectifier lu bari téeméeri entraîneur mënu la am ah, waaw man di ko rectifier lu bari nag war nañ ko rectifier mënul am war nañ ko rectifier lu ah, bari bari lu bari bari bari lu bari bari lacune yi dafa bari ca xeex ba li nekkoon daaw ñu gis waaw waaw yaakaar ko ren mhm. li mu indi ren doyul nit ñi mhm. day leer waaw mais mais mais dumbul foofu dumbul foofu foog encadrement am xamal ne ko waaw la nga daan dajal daaw dafa beneen palier boo yëg li nekkoon daaw <laughs> du ren du voilà kon de moom moo ñëwoon examen de passage mhm. sa examen de passage nag boo ñëwee échoué ko ngañ am wax ma la sax am médiocre mhm. note bi nga am muy note boo xam ne médiocre la da nga war a delluwaat ginnaaw mhm. xoolaat sa bopp jàngataat ci sa bopp jàngiwaat yokk sam njàng mhm. ñu ko yore nañu ko defar taay bi baax na taay bi baax na xale la xale la judduwul waaw ñàkkul dara. bay am dara. mais da leen di jaral ñoom ñu def ci sacrifice. mais li ma gën a jaaxal ci Dumbul mooy bu jàppee du liggéey. loolu lañ loolu la loolu la jàng. waaw jafandu rek. loolu la ah, jàng jafandu. est-ce que ñoom waxuñu ko ni saa yu jógee jàpp ko rek téye ni nem. Hmm. ba kañ boobu baaxul soo jàppee da ngay actionné da liggéey da ngay liggéey. mbër su dëbbee sol war na actionné. Hmm. su jàppee ci poqataanu ngemb war na actionné. Hmm. su saralee loxoom téye ci peggu ngemb war na. actionné. dumbul dem na ba jëllu laay bi. Mhm. te te ca ginnaaw ngemb la gen ga ca gennu ngemb la waaw. téye ci ba mu sax. waaw ah, parce que dafa jot beneen loxo bi waaw. daf ko lambeer loxo bi mu ngi ci sengoor gi mu mhm, téye. Mhm. mais mënoo wiite. wiite waaw mënoo dëj. waaw mënoo mënoo taf waaw. <laughs> Ah, ngañ waaw du liggéey dañ la ko doo liggéey voilà voilà jàngal voilà dafa ñëw rek stagné wu dafa bu euh, dafa ñëw dafa ñëw takk baaxul Mbul dafa ñëw takk ci combat bi. baaxul laay bay mu ngi def ay possibilité pour jéem a génn ci combat bi. te looy def mu yëg ko waaw waaw mu yëg laa yëg ko waaw laa yëg waaw laa yëg ko waaw. suñu ñoxeet rek laa ko waaw. laay day bàyyi ba mu actionné rek. laa yëg ko mu wiite ko laa yëg ko. remplacé ko et boo xoolee laay bay côté bi muy côté côté côté bi nga xam ne flanc flanc gauche flanc gauche ba la yaakaar naa. waaw flanc ba toujours moom lay taf. waaw fekk dumbul day foofu nag dumbul du am nu mu résoudre occasion boobu. mais loolu défaut entraîneur la loolu entraîneur ko war a dindi koy dindi ci saa si waaw moo ko war a dindi disposition yi mu jël nga mbër day mën a bëre ñaari wet waaw ñaari wet waaw wet gi nga mënewul moom nga mais lan lu tax ñu ne entraînement mhm. mais li nga mënewul ngay jàngoo entraînement jërëjëf boo demee à l'entraînement mhm. li nga mënewul moom ngay liggéey mënewuloo sa wetu càmmoñ liggéey ci ñu la ciy daan bis boo ci commencé daan mokk mokk ñëw ci jërëjëf jërëjëf Cheikh Thierno Euh, ci njàngat boobu ak euh, première journée bi nga xam ne Abdou Fall amal na ko ci stade Iba Mar Diop euh, Dumbul ak Laye Bey dañu nul di den fàttali nag ne loolu ci làmb la bokk victoire défaite la ak nul kon démb dañu bëree samedi dañu bëree dix minutes nopparu cinq minutes bëreewaat dix minutes muy vingt minutes ñu dellu siwaat def prolongation cinq waaw defaat cinq cinq waaw presque bëre euh, bëre bëre bëre bëre nañu. temps réglementaire bi yëpp trent minutes euh, bëre nañ ko kon je pense que euh, Laye Bey am na mérite am na mérite. parce que mille mille 2004 la Laye Bey apparaître woon ci làmb ji daan Bismi Ndoye Demba Diop keroog la Gris Bordeaux première édition Gris Bordeaux ma Mandione daan ko jël bu rëy. bu ba pare nag am ascendance bu dëgër ci làmb ji mais dafa dem ba benn côté Falaye Baldé la nekkoon waaw waaw boobu nag et puis man nag li tax kii daan gaay rek bi mu bëreek Modou parce que Modou moom la njëkk a bëreel grand combat ci stade bi stade Momar Diop kon am na njàmbarte xale boo xam ne bii mille 2010 la ñëw ci làmb ji xaw ma 2009 lay bay 2004 mën ko tenir pendant 30 minutes ñu dem ba prolongation ñu tolloo ay euh, ay euh, avertissement kon lay ah ñu koy féliciter te mu gën a liggéey mbokk yi noonu la ñuy jaaree rek dem ba Ngor ak mu Mounia production ci diggante ki nga xam ne mooy Picca bu Zap ak ki nga xam ne mooy général bu Malika bu écurie Falaye de ñu seetaani ni euh, làmb ci dellu siwaat Fifty Cent ay darakara at bi sifé na ndaysaan ñoom ñaar ay darakara Fifty Cent ay darakara suñu ca suñu ndejoor Fifty Cent suñu kanam Fifty Cent moo ñu wan ginnaaw moo ngee moo ngee lu weex ndeysaan sëñ Modou Niang moo ñu fi woo ci stade municipal bu Ngor Aïdara Kara jël na ko jël na tànk ba Aïdara Kara jël na tànk ba Aïdara Kara jël na tànk Fifty Cent attention waaw waaw da ko war a daan na ko wër na ko wër na ko waaw waaw ba léegi dafa sotteegul arbitre ne jël am na xam naa quatre appuis xam naa Katapila ay dara kala waaw waaw daan na ko daan na ko moom ay dara kala Petit ak Ould Taya ñoom ñaar attention Petit Ould Taya Ould Taya moo ngeem moo ngeem lu xonq li ndeysaan nekk école de lutte Balla Gaye moom Ould Taya ndeysaan attention doon Petit taw na centré ko Petit taw na centré ko attention mais takk bi dañ na ëldu taay am na ngemb de mais droit tam jàpp na waaw waaw mais droit tam jàpp na ma koy dugal mais gauche ba waaw waaw attention Petit ëldu taay mbot la bëgg de daa mel ni wet gi am na lu mu ci mane am na lu mu mane ci wet gi ëldu taay attention Petit ëldu taay ëldu taay am na lu mu mane ci am na lu mu mane ci wet gi waaw am na lu mu mane ci wet gi daa mel ni moom la bëgg a essayer noonu attention Petit Ould Taaya ah dafa mel ni daan na de Ould Taaya daan na Petit bu mbaam général mbaam xuux astafurla général mbam ak dragon général Mbam moo féetee seen càmmoñ Drago seen ndeyjoor moo dóor noonu Drago de laa ilaaha illallaah dóor nañu Drago jël nañu tànk Drago jël nañu tànk euh, général Mbam astafurlaa Mbam ña ngay rokkas général Mbam Drago jàpp na ndeysaan waaye ci ay ndomba rek la jàpp Malick Thiandou li wóorul mbër dañuy takka takka takka takka takk bilaay Medoune Diouf zumeel ma ngembali ngemb bi lépp ay ndomb la laa ilaha illallah xanaa war naa ëpp ñeenti téeméer añ ko añ ko laay laay la la général mbaam daan na dragon bu mbaam daan na dragon man la général mbaam xuux astafurlah général mbaam daan na guy gi numéro 2 ndeysaan moo ko mooy jàkkaarloo ak booy waar faal ne woon na ma ndeysaan faal waxu ko dara attention Ah, guy gi de mi ngi ne tekk rek jël nañu tànk guy gi guy gi jël na ko waaw ah, bu ma doon moom dëgg la de bu ma doon moom du ma jàppante guy gi de ba mu dagar nga mbot waaw waaw waroo woon dugal tamit guy gi doo daan waar guy gi nag li nga doon def rek nga waroon a continuer xoola borom blouson bi xool ko xoola borom blouson bi dimbali ma rek nga xool ko akub gurtam akub akub sarbetam ñas kumba abdallah nduyo baa ngay noonu ndeysaan Ibo bu caaroy gaar jël na ko laay laay la laa jeex na de waa def na quatre appui de waaw waaw wóor na def na quatre appui wóor na ma da koo bay 187 appui laay laay la laa combat bi matul deux secondes Ibo bu caaroy gaar daan na wóor na ko du lit Pape Boston wóor naa daan yanu na saaku yi wore naa man wóor na laay laay la moo daan nii ba pare di kii nii. caam yëmbal mbooloo la nag nday sànca malal njaay moo nge moo nge mu lu weex li mooy jàkkaarloo ak booy sëy bu Kër Masaar mbooloo booy sëy nday saan bari defet nday saan daan na ki nga xamante ni nii moom la ñuy wax sita mu remplacer defet yu mu musoon a am nday saan ci àddunaam waaye booy sëy sonn na nag ci làmb lu ne daj na ko ci ci làmb booy caam ak booy sëy songo nañu booy bi ñaari booy a ngi noonu ndeysaan ab booy arbitre moo leen di arbitré booy reporter moo koy reporté booy caméraman jine camé e eh! looy looy la la danoon ramassé tànk yi mu doon xaadim sàmm mu ne gala jaane <laughs> ah gars lañ doon wax de décembre décembre bii de moom lay lay la jël na ko bañ na nday ndeysaan Keba Kanté ngi noonu toog sama xarit sama rakk yi nga xam ne ndeysaan damay compal rek ak a gaaw ci compalaate kee baa gaaw ci compalaate wuteeg njaga ñang mi nga xam ne lu mu wax du dëgg laay laay lalaa tuur na ko booy caama ngi ci suuf booy caama ngi ci suuf laay laay lalaa booy sëy kat ab yamul déedéet trois la jogal bu doon Moustapha Gueye mu ne leen l'œil du nii la koy defee <laughs> laay laay lalaa booy caam jóg na laay laay lalaa booy sëy daa télé ah man xaw ma li ñuy toog ci banc yi lan lañ leen di jàngal Malick Thiandoum man loolu jaaxal na ma lool man boo may wax wax ma jàmm li nga may wax yépp ci télé bi laa koy waxaat doy prendre la naan <laughs> donnoo sa baay de sa de lim man rek lay def saret bu yàqoo ak yaawu jàll añ na ko laay laay la laa daan nañ booy càmm booy say bu Kër Masar mbooloo daan na booy caam moo ko daan kañ waaw mi ngi julli day fay faat day fay faat day fay faat waaw waaw booy say daan na ko daan nañu booy caam waaw daa dóor as dama dóor as Max Mbargaan wax nga dëgg as baa nga taq rib mooro ngemboo ngembulu mbengulu ngembulu dóor noonu looy laay la laa jaraaf lay jàkkaar lool ban jaraaf jaraaf da Dakar wañ nañu moor dan nañ moor laay laay la laa jaraaf daan na moor moor de daa yaakaar ni moor est mort et enterré on a on a tué mort mooy sama ndey xoola waa ji mu àndal jëli rek la man xool ko dimanche bu nekk mu yóbbu xaw ma lu ngeen di jàngal xale yi jàngalu leen leen bëre jàngal leen leen dara daan nañ moor Fall grand combat ba ngoog teel a duggi marché teel a taal teel a ñibbi loolu ndeysaan ki ñu koy wax mooy Serigne Modou Niang le promoteur ndeysaan des Nations Unies le ministre de l'emploi de l'arène sénégalaise ndeysaan grand kone ci Washington maa ngi lay nuyu général bu Malika ak Pika eh ngi door Pika ngi door général a ngi door général a ngi door léeg-léeg lii jàmm mbete mbàccum gerte général a ngi door mbàccum gerte ngi mbàccum gerte ngi pourtant général waxoon na ko ci l'œil du tigre maa man de général a ngi door pika ñaari wa ñaari ñaari ma ngi koy añ bañ na xale bi da dengee ñee dënn mais pika mi mën naa bëre a ah, Max Mbargane laay laay la laa dina ko daan tuuti ñu daan benn arbitre bi arbitre yi moom war ngeen wuti gàllankoor. tey ku fi jaar joxe daram Pika song ko ma ngay door aveuglement Pika day door di sëgg Pika day eh général a ngi dóor général dana ko wàccee dana ko wàccee dawal danañ la wàccee dawal danañ la wàccee dawal téye ca rek añ na ko añ na ko danañ ko wàccee kaawo na kaawo bi kaawo na pika kaawate na atte leen combat bi atte leen combat bi atte leen combat bi illallah waaye yéen Pika mi moo ñàkk jom astafurlaa nangu na téere ba daa jaawatle woon téere ya Pika daa jaawatle woon téere ba ak téere général bu Malika eh xool ko mënatul taxaw mbete ko naan sum-sum général bu Malika ak Pika ma yow Medoune bàyyil affaire bàyyil bàyyil bàyyil reportage yi ngay doxaanee yow bàyyil reportage yi ngay wutee coro Malick Thiandoum xam nga lan la toppatool sa affaire Pika ak général bu Malika booy bi chaque dimanche rek mu waxloo ma benn jigéen añ na ko añ na ko Pika takk na ko Pika takk na ko mbot ma bañ na mbot ma bañ na Pika Pika daan na général gàccey door gàccey daan fañ na ko gàccey door gàccey daan fañ na ko laay laay la la déedéet gàccey li mu wax xamu ko Pika bu bu écruta zap daan na général bu Malika pourtant général bu Malika dóor na ko dóor yu métti waaye Pika daan na ko kenn du laaj ku dóor ku daan la ñuy wax que général bu Malika ak Picca euh, moom lañ doon seetaan ni léegi ak combat yi ca tostool waaye gis nga euh, général topp xeex bi rek Cheikh Thierno ah, ngañ bëre dóor la wax bëre dóor ngañ dóor waaw wala dóor bëre dóor bëre dóor <laughs> sa contrat bëri dóor lañ la signé. dóor bëri. waaw baaxul nga génn xeex. waaw nan nga mën a dominer sa adversaire ci ay ku mhm. ba ñu ni dana daanoog dana kii dana kii ngeen jiggi làng gi ñëw dellusi si. ngañ ñi la indi ñoo la naan ciix ni la eh xeex bi dëgg la. Mhm. mais waa ji bëri si lay wut ak mhm. yow. xeexul non. piccaa la xaw ma ah, picca. waaw waaw. waaw rek la doon wut si. Mhm. li mu doon wut moom am na ko. kenn du ni ku duma. Mhm. ki daan la ñuy wax daan la ñuy wax waaw kan moo daan. waaw waaw. mais sa adversaire soo ko attaqué ngañ. ferme dox ci kawam xeex moom ba mu ubbi. Hmm. mais ngañ. waaw waaw waaw waaw et puis xale yi nañ leen jàngal bu boo waxee mu ni euh, tànk ni joram la jiital mënu ma ko ci song tànk càmmoñam la jiital mënu ma ko ci song kon fooy songee waaw fan ngay songee waaw ndax ndax nit ki foog mu taxaw fan waaw da nga bëgg mu aj mu aj tànk <laughs> mu lem ko mu lem tànk yi waaw mais fan ngay songe <laughs> mhm. mais li nga mënul nañ nañ la nañ la ci liggéey loo mhm. buñ la ci liggéey loo nga ci liggéey ba mën ko Cheikh Thierno jël ko jël ko ci xeex la bokk mais yow mi yow yow mi ko yow mi sooke xeex sax. jël ku ndax xeex ba dana mujj ci yow mujj ci yow ci xeex la bokk. parce que mën nga gëdd nit. waaw xeex seeg moom. Mhm. mu dajeeg yow. Mhm. wala mu jël sa ñaari coup yoo xam ni mën na ko amortir carrément. Mhm. nga ni kii xaaral ma jeexal ko yëkkati sa loxo mu ser la. ser la bëtt la ser la. wala mu bëtt la nga xalaat nga xalaat ni day bëtt day ñëw fekk dafa mépp wàcc nga xalaat ni day ñëw mu fet dajeeg yow. tëggal ko tëggal ko waaw. waaw euh, général. Euh, xale yi nañu leen rectifié nañu leen euh, defaraat te bàyyi ñëw ñu ngi félicité. xeex wu bunt la ngañ. picca boobu bunt la. bëree dóor buntu bëreel. bëre kenn ni ku duma. bëre dóor daan la ñuy wax. mala dóor bëre. waaw làmb foofu lay commencé. waaw foofu lay commencé waaye tamit. te ci jël lay jeexee am na acte boo xam ne. foofu la mbël daan defee calcul xale yi dañ ko bàyyi. Mhm. dañ ko bàyyi. muy léewaatoo léewtoo ngañ moo daan moo daan jalon bi njëkk waaw nga xam gis ko ku xam si sax danga nga war a euh, léewtoo demee wet ñëw xool dugg ci biir garde waa ji waa ji du la yëg xam nga waaye nga ni xam nga xale ban xale ban moo léewtoo ban xale armée mooy léewtoo ba nga gis conc bi. te li ñu entraîné Frazier. waaw xamal nañ ko ni lii la armée di bëri si. waaw loolu lay bëri si. armée dafa am ma manin. xam nga fan laa xamee bàyyi manin xam nga fan laa xamee ne combat bi du yàgg. <laughs> ca léewtoo ba. waaw dama gis euh, kii buy léewtoo. armée armée conc bi. Hmm. mi ngi tegu fii. fii la koy teg fii la koy teg. day dëgg léewtoo fii la koy teg waaw. koy dagg waaw foofu la koy teg waaw. <laughs> Frazier nii lay def. waaw non day day yaŋaañ. loxo bi lay. nii ngaay yi waaw loxo bi day ngaay yi. nii voilà. loolu du léewtoo léewtoo dañ koy jàng à l'entraînement moo tax xale yi nañ leen di rectifier à l'entraînement ngañ ah. kuy kuy léewtoo ba mu jeex hmm. ci dagg léewtoo ah. mën na ubbi sa loxo hmm. ci léewtoo bi ah. day ubbi sa loxo ci léewtoo bi fel fii fel fii fel fii rek dajeeg yow euh, kon loolu lañ leen jàngatal ci xale yi parce que tamit foog ñu leen di indilaat euh, schéma xale yi pour que ñuy rectifier ci biir bëri mbokk yi màng Production amaloon na première journée euh, terrain gaal gi Euh, di drapeau monsieur Mamadou mbay di maire Grand Yoff euh, tegoon fa nag un million ñu dem ba terrain gaal gi c'est une première journée de lutte traditionnelle ak Mango Production champion la te soo bëggee lu baax da bëgg champion man la duñu ma ko lool man loolu dama ko koy laaj ba léegi lu tax mu ñëw tudde ma ko ndax man miinu ma ko mais xam naa ne champion la loolu man am naa cofeel boobu ci moom bi ma tuddee bës bi dama ko jël delloo ko sama ñaari rak ki ci jëkk muy Khalifa Ababacar Sall di meeru Ndakaaru ki ci topp sama beneen rak bu baax ci man muy Boubacar Camara ancien directeur général ban mu PCA bu Sococim rakkam Bachir toog fii vraiment ak su sumay jabar ak sumay doom ak suma askan suma conseil municipal suma bureau municipal ak population ñëpp ñëw jàpp may gërëm ñëpp di sant ñëpp. jotul parce maa nga def wane na ni lutte bëriwoon balaa ngay mën a doon bëri faaw nga mbapat faaw nga jaar ci lu simple est-ce que lii jotul nga lancer message en tant qu'autorité en tant que père de famille nga wane xale yi ñu gëm ne nan jaar ci mbapat yi waaye maa ngi bëree tax na léegi yàq na làmb ji. non waxuma mbapat rek ak lu mu doon ci àdduna. loo gis dafa am loo xam ne li ma la di wax lu waay mënul neexul loo bëgg a mën nag da nga koy jàng mënoo tari mënoo tari te jàngoo nga dafa jàng manga dafa jàng xam moo tax soo ñëwee manga da koy fekk ci buntu bi manga da koy fekk ci biir parce que xam na nu mu demee xam na li ci biti xam na li ci biir di ko gërëm di ko sant ci cër bi mooy dox leen daan te loolu moo lay wan ni làmb noonu la waaye diggante Malal ñaay ak Gana Ndong ku suble ba daan la ñu ngi lewtoo Gana woon woon ginnaaw Malal moon woon kanam ñu ngi too ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi jaayante force épreuve de force ci diggante Malal Ndiaye ak Gana Malal dagg na lewtoo bi demee latéral Malal Ndiaye moon woon ginnaaw léegi ngemboo ngembulu fertili daf ki wisaar bu la Malal yóotu na tànk ndax dina ko am Gana tëru na ko na ko Malal dem na gànna tërël gànna gànna ndong ak malal njaay ay séeréer ma wër duma ci wax ñi ngi jëm pexe ndax pexe dina am ndeysaan at bi sifflé na dañuy atte ah jox nañu gànna victoire jërëjëf euh, mbokk yi ginnaaw bi ñu demee terrain gal gi ambiance yi euh, gis nga bi ñu demee terrain gal gi gars yi bëri nañu gis nga délégation bi nga xam ne maire bi def na ko ak déclaration yi nga xam ne jël nañ ko ci ay kilifa muy ay waxtaan yoo xam ne yi euh, ci civilité nga xam ne booy xool tey ñu ne fan la lutte traditionel ubbee ñu ne terrain gal gi fan mooy terrain gal gi mooy Grand Yoff mooy capitalu lutte traditionnelle. Mhm. fii ci Ndakaaru fa la màggalu ko ko. fala Ibou Ndapa lukk ko fala Mame Ndiaye lukk ko fala docteur fay lukk ko hmm. euh, Ambroise Sarr mi fala lukk ko kon maa bu dellu seewaatee dem jël li traditionnel ubbee ko Grand Yoff tuddee ko meeru Grand Yoff dafa delloowaat làmb fa mu dëkkoon kon Adrien Senghor fa la ne te dégg naa fan yi euh, réflexion bi sori na lool hmm. ñu ngi ci félicité góor gi Ngor Seybou Diouf euh, daañ ci ñëwaat ci Adrien Senghor waaye première journée bi gis ngeen ko mais Cheikh Thierno li ñu gën a jàpp ci première jou Euh, mooy ginaaw bu ñu félicité ki nga xam ne mooy vainqueur bi di Ngane euh, Ngane Diouf. waaw 600000 yi moo ko jël. ak Malal Ndiaye mi nga xam ne première journée lutte frappe moo ko ubbi. moo jël 300000 daan Paul Maurice daan Paul Maurice. waa léegi retrouvaille bi mi ngi commencé waat ci lutte traditionnelle. ndax le retour de Adama Diouf. ngañ. buñ ñu sonnal. lutte traditionnelle. c'est la lutte pure et vraie. Mm-hmm. ngañ duma wax Robert duma wax Boy Bambara duma wax Papa Diop duma wax mbay Guèye duma wax Papa Kane duma wax Madiaw Ndiaye duma wax Daouda Fall duma tudd Alioune Seye waxuma ak Balla gay ñi ngi doon waxtaane léegi démb ci yoon xoola rek duma tudd Modou du waaw Pouy ndeysaan dem si yàlla gàmmu Guèye bëre na grand combat ñëw bëre mbapat mhm. Ousmane Mbengue Mbaaw def na ko Mody Thiaw Mbaaw def na ko ñi ma la limal ñëpp def nañ ko mu Moustapha Guèye bii def na ko mais lu tax xale yi ko ci bëre sax combat dóor spécial dootoo dem ci lutte traditionnelle wala sax deuxième combat ah. bëgg a gedd lutte traditionnelle te xamoo ni sa njàngat fala ne ah. mooy sa école fa ngay jaar ba say jëli jeex bu say jël jeexee nga ñëw ub làmb ban bénéfice la ñoom Sadio Camara amoon. ñoom sàmba Diagne. ñoom Mor Ndaw mhm. mais dañ daan dem bëri ji ñoom Ambroise Sarr. Mhm. dañ daan dem bëri ji ci làmb yi xam ni xeet ya fay daje day wuute. waaw ah, bëree wuute. ana làmbu Joola. làmbu Joola ndeysaan ñoom Fally Coly. ana Gaynde ñoom Nabi Coly. ana 52 ba jàpp ci ñoom HLM xoolal xale. xoolal ñooñu nga jóge fa. Mhm. dërmal ni maa nga jëm làmbu séeréer. Ah. xoola ñaari xeeti bëre yi ñu ñu wuutee mhm. nga jóge fa ni maa nga jëm mbapatu caaro yi mhm. damay tëj bu pikin soog a dem caaro yi mbër da daan xas tey damay tëj pikin soog a dem caaro yi léegi nag mbapat mbaa ma toj yara léegi mbapat raaf sar dem tëngee jëg barñi léegi mbapat raaf lu traditionnel bi taxaw Adama Diouf fa dem bëri Adama Diouf ca la nekkoon succès bi mu am yëpp fa la ko amee woon ñëw ci bëri dóor bi da nga daan daan sax mbapat boo ñibbi waaw mais yaa ngi àndal paas nañ lay jox bii dañu teg dañu teg million nit ñi kaay leen kaay leen ngeen wane seen bopp li ngeen di jàng ngeen ñëw tari ko fii jàng baax na mokkal baax na mais nga tari moo jafe jafe xale yi nañuy tari ji ci mbappat mi bu ñu taree ci mbappat mi mhm. ngañ suñu ñëwee arène lu ñu def yoon la ñu ngi félicité Adama juuf wax na euh, dëgg di wax tamit di njaay attention Malal Malal. ak Paul Maurice mooy Malal dellu mais Malal yey na leen. mal Malal dafa daan dafa daan Paul Maurice. démb dem final démb dem final démb waaye. te ñaari Malal li muy def xam na lan la. di nga am compétition. Mhm. lu la réer ci cong mi ngay cong. di ko di nga ko mën a rectifier. rectifier. bëri bi ngay bëri. Mhm. lu la ci réer buñ la ci daanee aux nga dem ba kii ko dé boo ñëwee dina dina dëggu ci yow mhm. mais xoolal tafaatin Balla Gaye mhm. ba ñuy wax Balla Gaye daf ni mboot mi ma njëkk a jàng ci sama wetu càmmoñ ci yow laa ko essayé yaa ma dugal foofu ci mbapat yaa ma dugal foofu yaa ma dugal damay transité xoolal xoolal loolu waaw ma téyel ma foofu <laughs> ginnaaw bi ñu félicité Manga màng production <laughs> mhm. euh, ci première journée boobu jàng nañ tamit ne combat euh, ki nga xam ne euh, mooy doomi dàngu ak ki nga xam ne mooy papi général Manga de production taxawal na ko. taxawal euh, na lu rëy waaw ah, jàppagul date mais incha allah daañu ñëw bu ñu jàppee date nañ jël si combat boobu waaye di ko féliciter bu baax ci journée boobu ak le ma Mamadou mbay ñu dellu soit euh, di féliciter Adama Diouf ci retour bi nga xam ne def na ko ci lu traditionnel te terewul bu amee combat doo da koy dem. kon Paul Maurice gars yi nappaan nañ ko mu dem frottanteeg ay xale foofu. Mamadi Ndiaye aussi frottanteeg xale te du boo amee bëri dóor nga dem bëri ji ko mbokk yi. Cheikh Thierno fagade fagade nu mu daan def. waaw da daan da daan ngarale. waaw mais <laughs> mbër day ngarale kon jërëjëf Cheikh Thierno Mbaye Cissé nu mu daan def ñu dellu si nag euh, ci li nga xam ne tey moom lañ leen indil ci combat yi nga xam ne moo ne sunu kanam ndax moom lañ doon xaar parce que tamit euh, lii wolof naan tagge boo boo gis day am jàppal ma diw comme dara comme ñoom diw dara leeru ci woon uh-huh. léegi leer na Bombardier Balla Gaye 2 roi des arènes roi de Bercy. waaw. Uh-huh. <laughs> waaw roi des arènes. wax nga dëgg de. ak roi de Bercy. dëgg la. te ñoom ñaar seen rencontre xamul nga lu tax mu garaaw. Mm. ku ci ne booy ñëw couronne bi nga yor. Mm. da koy teg en jeu. koy teg en jeu. te Bombardier ñam na mu ñamoon na roi des arènes gi ca Tyson. ñaari at la ko ñam. te Balla Gaye ngi tollu ci ñaari atam ci ñaari at. Balla Gaye 22 avril. ah deux 2000 2011. ñëw mi ngi mu téye. ba 22 avril. mi ngi mu téye 2013. waaw mi ngi mu téye ñaari at mu téye mi ngi mu téye ñu teg nag. waaw juróom benn weer juróom ñaari weer. waaw waaw kon du nangu yëfam dem. du nangu. yëfam dem. mais est ki mu ko jëlee. waaw mooy ki daanoon bombardier. téye ko huit ans muy Yékini. daanaat ko ci. muy Yékini daf ko ci daan daanaat ko ci waaw daf ko ci daan daanaat ko ci ñu ñëwaat mu daanaat ko ci mhm. mu daan ci Tyson daanaat ko ci daanaat ko ci ko ci daan ci giri waaw ci giri waaw ba pare non ba daan ci baaboy ngoñ daan ci baaboy waaw léegi Balla Gaye ñëw léegi Balla Gaye ñëw daan ko moom waaw Yékini ko ñàkkoon mhm. ni li may def mooy boo Bombardier ma ko ñàkkoon. ni li may def mooy. ki xam ni daan na ma ñaar yoon. ma yaakaar ñetteel ba ñetteel ba mu daan ma ni dootul bëreeg man. dootul bëreeg man joxaat ma ki ko yàlla joxaat ma ki ko daan. kon sama jom ak dinaa ko ci def. Mm. daan si Balla moo ma tax a jóg. xam nga am na jàngat boo xam ne dugg fa. diw daan na ma ñetti yoon. ne dootul bëreeg man. yàlla jox ma ki ko daan. maay maay furlis kon komba boobu ak Bombardier nan la war a mel. non komba boobu dëggoo man la du yomb li tax Bombardier daan si Balla gay lay wut si dama la waxoon ni vedette bu ndaw. Hmm. dundam mooy folli bu mag. waa léegi vedette bu ndaw bu xësee folli bu mag. ba lan mooy kiiwam léegi moom it. mag ña da mag ña dañu koy gete dañu koy rëbb. kon Balla gay mag ñee koy rëbb fi ñoo koy rëbb fi ñu ne. ñoo ko bàyyeegul bàyyeeguñu ko. ndaw ñaa ngi koy wut si Madou dafa jël ndënd te xamul fu mu koy tëgge rey commandant yomb na waaw waaye jaal xaar fa njaal maa jafe mais Balla Gaye nee na leen rey naa commandant damay toog xaar njaal mi Balla Gaye njaal ma la bëgg xaar nee na njaal mi laay xaar njaal mi nag Bombardier ci njëkk te Fatine dafa ñëw ci njaal mi ñu bës ko <laughs> ne ko ma tagoo jaale waaw ñoo yem génération waaw ne ko yow yow ñoo yem génération ñoom maas lañu mook tafatin dama koy tuddee apéritif. maas lañu waaw te ci doon da ci doon euh, revigoré wu rek. voilà maas lañu waaw léegi. maas nag su ñëwee mooy luy dërmal ci ñam loo xam ne mën na la jox appétit ñam waa ngi lekk gaa ngi. lekk gaa ngi doog a ñëw. lekk gaa ngi soog a ñëw. Euh, mbokk yi di leen fàttali ne di leen fàttali ne. Euh, jàngat bu mel nii moom la ñu jàngatoon maag Thierno ça fait ñeenti at ci ginnaaw jàpp ñetti at mooy bi ñu naan. Euh, ki nga xam ne mooy vedette bu ndaw vedette bu ndaw bu mag mooy li nga xam ne moo koy revigoré maanaam moo koy may tonus moo koy may doole appétit moo koy may Balla Gaye résoudre na problème boobu réussir ko ci ni mi nga xam ne tey ba léegi roi des arènes record bi moom la Balla gay nag di xeex record bi li mu ko téye la bëgg téye lu ñu toll mbaa lu ko romb waaw mooy huit yi huit ans yi ko Yékini téye waaw ngañ ndono dafa fort mais doon dono ba pare doon la nga doon moo fort. waaw mais est-ce que coow li par exemple tey. waaw. xam nga ñoom ñaar ku ci ne mën nga daan sa morom. waaw. xam nga ku ci daan ñaari couronne ngay téye. waaw. Bercy Balla Gaye bu daanee day day danaan bombardier sa sa sa loolu. waaw doon li ko jébbal ma ko. kii it bu daanee danaan ko li ma li ma yoroon. li ma yoroon delloo ma ko delloo si boole kooku la ma yoroon. waaw waa léegi yëkki ni ci biir calcul bu làmb jooju tase tey Bombardier daan. waaw kon ni est-ce que waxaat waxaatam ba du ko dindi. waaye ba lu tax du ko dindi làmb làmb la rakkam la xaritam la léppam la mais làmb làmb la ngañ waaye Barabara bëriwul ak Falaye Balde ku leen gën a jege. waaw Austin Diatta ak Falaye Balde ku leen gën a jege. loolu mën na ñëwaat Moussa Diame bëriwul ak Robert Diouf. mais loolu ku leen gën a jege mais attends Bombardier. dama ne la Bombardier. Yékini ak Yékini mën na ñëwaat mën na parce que bu Bombardier daanee Balla Gaye ku lu revanche ku ko daanoon bañ ko may revanche di nga ko wut si. di nga ko bëgg ku mu daanagul di ko wut si ku ko daan ku mu daanit dinga nga xatraayu pour ñëw dama ne la du lu ndaw. waa léegi euh, du lu ndaw léegi bu ñu yëgee. te dafa am lu Balla Gaye taxawoo mooy. da nga ñëw pour jël li ma jël ci sama hmm. téye ko mu dellu ci mag ñi hmm. du ma leen ko jox mag ñi dootuñu ko yóbbu du ngeen ko yóbbu moo tax day metti dinaa ko xar ñi téye ko waa léegi ku jaar ci mun ko mun ko du dellu foofu maa bañ dama koy téye léegi ku jaar ci Moustapha Gueye waaw nga xam ne mooy doyen hmm. te ñii ñëpp ku ci ne sa promesse danga ko ci Moustapha Gueye ndax ndax ndax naw ko waaw nga jóge foofu jaar ci Baboy waaw jaar ci Tyson jaar ci Yékini Mm-hmm. est-ce que est-ce waroon nga fee bàyyi Bombardier. noo ko fi bàyyee. <laughs> nan nga ko fi bàyyee. kon wiiri wiiri la woon. mais ndaaree ngi. ndaari ñëw na. ndaari ñëw na. <laughs> wiiri wiiri jaari ndaari. ndaari jërëjëf mbokk yi euh, di leen fàttali ne euh, Balla gay numéro 2 ak Bombardier waaye mootloo Lo ëmbat seen. mais ngañ coow laa ngoog coow laa ngoog. coow laa ngo ñaar nga xam ne dañu bokk ay supporter nga àddina moo mën a dox ñu bokk ay supporter ñii dañ naan bugguma ëmm Modou Lo ak ëmmat Sène lu tax parce que man ñoom ñaar ñooy samay mbër ñii ni Eumeu Sène Modou waruñu bëre lu tax dañu sedd yaru mhm. dañu sedd yaru après <laughs> ba pare yemuñu ca de wex xat nag wex xat di ñaar ñu xam ni xat dañu wex mhm. ngañ dañu wex mhm. ñii ni dafa war am ñu ni lu tax ñu ni Balla Gaye Eumeu seen ni ñu bëggoon ñu ni lu tax ñu ni moo daanoon Balla Gaye te Balla Gaye roi des arènes te dañu bugg revanche boobu ndax Balla Gaye bu daane Eumeu Sène gàkk-gàkkam ci làmb day set mhm. benn meloo lay doon waaw benn meloo lay doon loolu ko gàkkal fi mu ne ñii ni mhm. na aw ci Modou mhm. su daanee Modou Lo ba pare dem bëreeg Balla Gaye daan ko ñii ni revanche su Balla Gaye ak Modou Lo ñoo ngi ko mën a amee ci Modou daan Eumeu seen su daanee Eumeu seen làmb day taxawul digganteem ak Balla Gaye dara du fa tuxu su daanoo am na lu xew de. su daanee Bombardier bëri su daanoo contre Bombardier bëri déet Cheikh Thierno ñëwal Cheikh bul yàkkamti. Ah, lu xewati am na luy ñëw. lan la. attention. lan la. raccourci mën na am. nan la ñuy indee raccourci. Malick Niang mi fëggi kër Double Less Sa Thiès. waaw dafa raccourci de. waaw. yëndu mag ñee tax mu jël Sa Thiès de. waaw waaw yëndu mag ñi. waaw moo tax mu jëli Sa Thiès. ngañ. soo indee tëral soo indee tëral tey boo tuddee Malick ñu ngi tudd Balla Gaye làmb la soo ko tuddee làmb da koy tuxal xam nga lu tax da koy tuxal il faut revanche yi am ban ak ban ma nga jëm di bëri ji ak Sa Thiès Ama Balde waaw waaw <laughs> ma ak Ama Balde waaw Ama na kër Sallaay Balde joox na kër Fodé Doussouba joox na kër Doubalees waxoon naa la ca mbaam ak Sa Thiès ñi la revanche yu démb yu mag ña mag ña doon ko wut tamal ñu ko am mhm. ci xale yi lay feeñee voilà moom laa doon wax léegi <laughs> Malick Niang fëgg na kër Fallaay Balde waaw kër kër kër Doubalees dellu kër Fallaay Balde fëggi ko kon mag ñi la bëgg a mag ñi la bëgg soo daanee ndaanaa ni xale looy euh, koy yónn ku doon mag ñi. Ah, parce que boo daanee ñaari. ndax ñaari rakki jàmbur ñaari rakki jàmbur. <laughs> bul sori. waaw. <laughs> Mayoro Fall dafa daan dafa daan Alaaji Birahim Ndiaye. Mhm. boobu Birahim rek la. waaw daf ko daan. Mhm. dabul mbay gay ci làmb mbay gay wëlbati ko ñëw bëreeg moom daan Mayoro. Mhm. ñu dellu bërewaat moo moo moo Mayoro Fall. ca stade Iba Mar ca stade ba du ci stadium bi seen deuxième combat Mbaye Guèye Pape Diop war a bëri dimanche ba ca topp Birahim dóor ko arrêt mu mu daan ba mooy kaw bi Birahim def ci lamb sax waaw waaw kon yaa ngi indi yaa ngi indi ni lamb tëdde woon démb démb mooy yaa ngi koy si waat mooy delloo si waat léegi euh, booy xool foofu tamit euh, fi ñuy mujjee te tëj ko mm-hmm. xam nga dama la dugaloon foofu waaw ah, kay léegi nag kay wax la combat bi ñu doon rumbu daat te ñu koy dëgëral. <laughs> boobu ban la Tyson Gris. mais bul sori. <laughs> Tyson Gris Bordeaux Tyson Gris Bordeaux. <laughs> Bordeaux. lamb yàgg na indi lu mel nii. kenn du tuxal seen champion. pire champion lañu. ñu mat champion. ñu dégg daal yi. ñu xam bis. àddina dem di dem di dem di dem di dem. ba boor Bordeaux dàpp si Tyson ci biir làmb mhm. ba boor Bordeaux ñëw fekk si ñoom Tyson mhm. Tyson génn làmb ba dellu si waat ci làmb fekk fa fekk fa Gris mhm. fekk na Gris samp sajju te mbër bu sampoo sajju lu nekk nga ca su Gris daanee Tyson day taxaw ni nii ku daanoon Moustapha Gueye booy boo nga pare di nga ma jox déet ngañ duma may na foo ma yóbbu ku daanoon Moustapha Gueye <laughs> doo dem booy boo nga taxaw maa koy revanche waaw foofu nga ma yóbbu waaw waa léegi Balla Gaye waaw ñaar daanuñu Moustapha Gueye waaw waaw foofu laa na ak Bombardier daan ko waaw waaw léegi déedéet revanche na ci Bombardier daan ko mu des mu des nag ñeent. déet mu des ball bu génnee ci. mu dafa ndànk. waaw bu génnee ci. rëccagul. waaw rëccagul kenn rëccagul kenn rëccagul ci waaw. revanche yi gëri gëri la bu ubbeeku ci moom. Ah. ay revanche su magam yi dafa taxaw. te boo mu saan gunge sa mag ñu daan ko yaa koy furle. yaa koy euh, mbokk yi euh, fii la ñuy yem. Euh, xam naa <laughs> waxtaan bi dama koy dagg ndax temps bi moo ñu ko mayul ci commentaire boo xam ne gars yi daal poñente nanu poñe poñente am na man nag làmb làmb daal li ma ci jaaxal euh, Cheikh Thierno man daal làmb daal euh, kenn du ko jeexal lu tax kenn du ko jeexal moo ma jaaxal koo ne dem na rek koo ne koo ne rëcc na rek làmb du am na lu koy kar ca kanam làmb du jeex noonu lay dem lawtan la lawtan la ku ko appal karante la ku ko appal jum mhm. waaw lawtan la ku ko appal jum kon defe naa ne poñente am na fi ñu guddi ñu toll Balla Gaye rëccugul bien que vrai mooy roi des arènes mhm. Bombardier rëccugul bien que euh, mooy roi de Bercy te it mës na ñam roi des arènes. Gris Bordeaux amoon na fi final ak roi des arènes ñàkk ko. Tyson mës na koo dégg yooyu yëpp ngi ci biir wax nañ leen diggante Malick Niang Ama ci yëndu googu nga xam ne Malick Niang bëgg na ko yëddu mag ñi. ba jaar ci ñaari kër yoo xam ne ku ne da leen di teggi Malick Niang ne man fulaadu laay jaare pour dégg daal yi. bi yoon na xaw ma fulaadu parce que man naqar yi ñoo ma ko yóbbee woon waa fulaadu. kon nag man naqar yi yóbbee nañ ko samay mbokk du ma bàyyi fulaadu mënuñu daan samay maam <laughs> daan samay nijaay daan samay baay ma nekk ci làmb di leen bàyyi di leen bàyyi kon mbokk yi lu dal yoof lu dal ngor mhm. lu dal wakaam mhm. lu dal mhm. dal gorong lépp fulaadoo lu mu mën a doon fulaadoo nga ca revanche yi ñu amee leen yëpp <laughs> ak yi leen Fodé amee yëpp yi leen Barabara amee yëpp ba caaro yi. waaw nee nañ ko doo rëcc. jërëjëf mbokk leen yéen du ngeen rëcc. jërëjëf man mii maa man mii maa ngi ñëw jël jërëjëf mbokk yi euh, waxtaan bi ak Cheikh cerno du doy euh, fii la ñuy yem ak yéen ci seen magazine Roffo euh, di leen sant di leen gërëm Gervais Yao moo ne woon ci caméra bi ak sunu jarbaat Aziz ñu ngi koy gërëm bu baax. moom gañ am na lu des. waaw lu des Cheikh Thierno mais. Yékini Yékini waaw waaw. Eumeu Sène. waaw non kooku kooku làmb yeeru la. mais bu fekkee may ma rek <laughs> ca Thierno Yékini Eumeu Sène kaay ma wax rek Eumeu Sène kaay ma wax na Eumeu Sène waaw xam nga yaa may dugal ci lu ma bëggul woon yegg fettaxee ñoom ñaar waaw may ma rek may ma foofu maa koy <laughs> may ma ma indi fi benn parenthèse da nga ne Yékini Eumeu Sène waaw te bu pré ci Modou ma nga jëm ci Yékini waaw te fekk te waaw déet attention xam nga lu ma jaaxal mhm. nan ngay dég ma lee Modou di gestu hmm? lee ma jaaxal ci Eumeu Sène kon Modou apéritif am li koy motiver mooy loolu. xam nga ah. adversaire saa yoo nekkee moom ngeen am combat bu officiel. Hmm. mu jëlaat beneen avance. ah est-ce que est-ce que est-ce que amul fu mu lay xoolee. est-ce que amul fu mu lay xoolee foofu la coow li ne kon combat ni ak Eumeu Sène làmbi yeeru la. Hmm. Modou Lô Eumeu mooy valoriser combat boobu. te loolu bëgguma ci woon yegg waaye yaa ma ci ah, bëma dina danañ ci non yaa bëgguma ci woon bëmaxu léegi bañ a bëmaxu combat boobu <laughs> combat Modou Lo dinañ ci danañ ci gën a ubbi Eumeu Sène mooy mooy wóoral ni Eumeu Sène mooy jox li li dund bu rëy ampleur bu rëy moo ko ko war a jox kon mbokk yi foofu la ñuy yëm ak yéen bëgguma ci woon yegg loolu lu ma naloon la bàyyi ko ba ci kanam waaye Cheikh Thiono bëmax na ma ci mbokk yi jërëjëf Cheikh Thierno Ndiaye laa feggaloon ci waxtaan wi nga xam ne vraiment gars yi dañ koy sàkku toujours euh, ci wàlli lamb kon mbokk yi euh, euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci montage bi ak réalisation bi ki nga xam ne mooy Mao Cissé ak ki nga xam ne mooy alu ñoo di leen gërëm di leen sant ba beneen yoon mbokk yi jërë ngeen jëf